ce qu'on me reproche d'avoir répondu à l'appel de Macky Sall lorsqu'il y a eu cette période de Covid xamuñu woon lan la mu ne ma daal chinois yaa ngi dee américains yaa ngi dee tubaab yaa ngi là te fii la jëm si xamuñu ndax danañu mucc xamuñu ndax duñu mucc dialogue national nañu ba pare ba nga normalement daf maa avoir jox statut chef de l'opposition de ak 4 milliards lolo dak fouf li ma nekki puisque joxuma dara fi ma toll ci ses bi ay miettes rek mais buma buma nekkon chef de l'opposition am 4 milliards di wër Sénégal kon heure bi dana fekk déjà ma nekk président c'est clair y a aucun doute là-dessus mais mu lolu lañuy def wala dañuy gàttandu li ba muccu ci soga xam lu ñuy def wa Guinée ñan ñoo daanel Alpha Condé ana ña ko daaneel ñoo yor nguur ku ko yor waaw kay waa Mali ñan ñoo daaneel IBK déedéet ñi ko daaneel laa wax ñoom imam dikku la ak opposition ana ñu ñoo yor nguur ga ku ko yor waa Burkina ñan ñoo daaneel euh, nguur ga déedéet opposition bi ñoo xeex ci mbedd yi ay balai citoyen ak yu kenn ñan ñoo ko yor

mooy ki mu ko leer ni yàlla waajal na ko mu mën a muñ diggante bi mu koy def ak ba dëgg ga di feeñ ci bëtu ñeneen ñi lañu ko cay teg ci jam-jam waaw bu mënul rek bu mënul rek jaru ko donc jàmm moo am importance te jàmm moom la suñu kilifa yëpp bëgg moom la sëñ Muntaxa bëgg moom la sëñ Mbaye Sy Mansour bëgg moom la laayeen yi bëgg moom la njaasaan bëgg moom la euh, waa Popenguine bëgg moom la Ceneba bëgg moom la roi Oussouye bëgg moom la suñu mbokku séeréer yi ñi ñi ñi ñi ñiy topp roog seen bëgg Serigne Cheikh doon wax ba ñu ko laajee ne ko turu yàlla yi dañ ne cent la quatre-vingt-dix-neuf yi wax nañ ñu ko bi lan la mu ne leen roog seen parce que mooy bu séeréer yi te nekkul ci liste bi parce que xam na ne moom yàlla nee na qu'il se conforme à l'idée que se fait de lui son serviteur donc c'est roog seen c'est possible nag 2024 gëm nga ne jàmm ñu ragal dina am ci Sénégal man gëm naa ne jàmm ji dina am non président Macky Sall damaa dem këram mu invité ma ndogu ñu julli timis julli gee moo ma jiite timis bi daf na ma jiiteel ñaar yëpp puisque man bu ma jiitee bu ma juumee yow di nga mën a wax subhanallah mais léeg-léeg yow nga wax ay saar yoo xam ni du ma ko xam boo ci juumee du ma mën a wax subhanallah <laughs> donc yaa war a jiite ma ne ko déedéet jiiteel timis bi mu jiite timis bi tari ñaari saar benn bi ayatul kursiyu ba mu ko tàmbalee nag ma teewlu gën a teewlu ndax dafa dafa maa daloon ci Ablaye Wade ma jëli ko aéroport mu ñëw dem permanence rek song ayatul kursi yu ma ne ah yàlla na egg ak jàmm de sinon bu bu eggul dinañu am problème mais mu tari ko tari bu leer deuxième rakk mu tari Quraysh tari bu leer imam bi fàttali na ko falyabudu rabba hadha al bayt alladi at'amahum min juu' wa amanahum min sa lettre de mission yow en tant que président de la république puisque yalla miñu mom dafa warlo ak ñun ñaar daf ne fexé ba duñu musul ñu ci dundal ñu ba duñu fexé ba ñu am wa amanuhum min khawf mané ko moy sa mission mané ko benn bi yaang ci def li nga man yaangi defar ay forage yaangi def bourse familiale yaangi def ay piste etc dama dem banja fekke waxtanu ay libanais yo xamni dañuy def chasse xamuñu ne xamuñu kan la doon puisque ma ngi sol sama lunette sama casque ak sama masque ñu ne ñom dañ daan wër ali sénégal yi di reub mais liñu gis ren biñu ñëwé ci forage ci ay piste ay nangam nangam nangam nangam musuñu ko gis ma sa sa vision bi parce que <laughs> li ma Matam ay Podor ay kenn xamul ni c'est complètement transformé mais Sénégal puisque défé nañ ni le 30 bi le Sénégal di tak ndax procès Ousmane Sonko man amna luma ci bëgg def mais duma la wax lan la danga may bayyi ma def rek buma défé ba pare bu la neexee alhamdulilah bu la neexul nga dakama ya yor décret bi <laughs> donc y a pas de souci mune bon d'accord vas-y ci la xé ci fajar bi dem séti Ousmane Sonko فلا جولي فجر تري إنا أنزلناه في ليلة القدر جيخي سلام هي حتى مطلع الفجر بوركوا جام جديم فجر بوركوا سلام هي حتى مطلع الفجر يالا مونيو أب دولي نيو نيبا آه، رغلول كن Et pourtant, il fait descendre tous ses décrets la nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tous les décrets, il les fait descendre là Et il dit, c'est protégé et préservé jusqu'à l'aube. Parce que guddi Ken kenn du gis def lan mais fajar gi mooy frontière u guddi ak bëccëg bu ko muree rek ñi nga ni décret bi neexu leen ñooñu ñooy jóg nag nekk ay xannaas di yu was wisu fii su duuri naas xam jinnat wan nas lol motay yalla pour se protéger de ces humains-là, de l'homme, là-bas, il dit seulement Falak. Il convoque seulement la seigneurie. Mais quand il s'agit de l'homme, il convoque Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Il convoque les trois attributs. Il convoque la seigneurie, la déité, la royauté pour pouvoir maîtriser l'homme. Donc l'homme est dangereux et le Sénégal l'est plus. Le Sénégalais, il est encore plus dangereux parmi les hommes. Il est capable, li bi wax légui, sa café c'est malheureux mais c'est comme ça nous sommes un peuple très bizarre et très surprenant beaucoup de menteurs beaucoup d'indignes de confiance beaucoup de truands beaucoup de njublang quand j'avais déclaré dans ma déclaration de politique générale que j'allais combattre N'Djoublan et protéger Gourgourlou, c'est ça que je voulais dire. Hein. C'est ça que je voulais dire. Et c'est ce que je pense encore aujourd'hui. Si vous ne voulez pas que je combatte N'Djoublan de façon sérieuse, ne m'élisez pas. Si vous me lisez, vous allez avoir droit à la vérité. Écoutez, laissez-moi finir d'abord mon message répondrai à vos questions politiques cet après-midi, à 16h. À 16h. Hein, je donne une conférence de presse Mais là, j'insiste sur le khutba de l'imam Diam, pour que les gens comprennent ce que ce djam là est important et mérite d'être protégé par tout le monde. Et en tout premier lieu par les citoyens eux-mêmes. Les forces de sécurité et de défense, bien sûr, feront leur travail, mais ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent protéger la paix. C'est eux les bénéficiaires de cette paix. Dans l'histoire, comment est-ce que l'État est né L'État est né suite à un choc climatique qui a fait que les gens ne pouvaient plus chasser, cueillir et pêcher. Et heureusement, à quatre endroits du monde, il y a eu quatre grands fleuves nourriciers qui ont traversé le désert. C'est le Nil, le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie, quoi, et l'Indus et le fleuve jaune qui a donné naissance à la Chine. Donc les quatre grandes civilisations dans l'histoire, c'est la civilisation égyptienne, africaine, puisque c'est la Nubie qui a éduqué l'Égypte, qui elle-même a éduqué la Crète, qui elle-même a éduqué la Grèce. Et c'est grâce à Alexandre le Grand, ce Macédonien, que ça a été éparpillé dans le monde et plus tard par César, avec la longue durée du règne de l'Empire romain, ça s'est universalisé. Ce qu'on appelle la culture universelle que les Occidentaux se sont appropriés est bel et bien né en Afrique, en Nubie. Les pyramides là, pyramides yi bor Soudan puisque Nil bi dafa lac Victoria dem Méditerranée dafa romb Soudan Éthiopie jaar fii ci montagne yi nangam nangam mais foofa ba loola amee nit ñi daw toog ci dex créer agriculture mu remplacer cueillette ñu créer élevage mu remplacer chasse mais chasse ak ak agriculture dafa yomb euh, euh, dafa jafe euh, chasse dafa yomb pardon élevage dafa jafe cueillir dafa yomb bay dafa jafe boo toogee di bay walla nga yeew sa sa sa sa gétt am ñoo xam ni ñoom la ñu tàmmoon muy chasser loola ca la ñu wëy ñuy ñëw di sàcc nag yeeg xar yeeg bëy yi éleveurs yi mooy vol de bétail ñëw bu ñu fekkee sa sàq fees ñu sàcc ko gars yi dem ba sonn créer pharaon firaw na mooy pharaon ñu ne buur bi ñaari fonction rek nga am benn bi mooy ndox mi jóge Lac Victoria jëm si fii ci Égypte ña nekk ca kaw bu ñu ko téyee jëfandikoo ko ñoom rek ñun ñi nekk ci suuf di loru ceux qui sont d'amont ne doivent pas retenir l'eau et empêcher à ceux qui sont d'aval d'en bénéficier deuxième fonction mooy ñun dañuy bay bay bi dafa laaj nga ruuj dafa laaj nga jëmbat dafa laaj nga toppatoo après nga def sa sac.

Donc les forces de sécurité et de défense là, Djoudou moins de moins 2800 avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ a 2000 ans maintenant et 23 années. Donc ça fait plus de 5000 ans que les forces de sécurité et de défense existent. sallallahu alayhi wa sallam, qui ont bët bi nga xam ni tuur na rànkooñ ndax dégg gi mu dégg samay wax yi yi yàlla wax maanaam ku ñuy jàng alxuraan ci moom ba ci àgg rek kooku moom du gis safar beneen bët bi mooy ki fanaan ba bërsët pour aar ñeneen moom nelawul jaarul ci nelaw ñan ñooy def loolu policiers yi gendarme yi militaires yi ba noppi dañ leen di rey ñoom Yow, président, tu as fait une revue des troupes. Diakarlo et Gonégo ont 18 ans, ou 20 ans, ou 22 ans. Je vais aller au Casamance, ou aller au Arabie Saoudite, ou aller au Fénin. Je vais défendre le Sénégal. Je vais faire des. Nous avons des caisses de l'eau Mais la responsabilité est pour tout le monde, pour tout le monde. Il y a des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui Alors que des jeunes comme eux, sont dans les forces de sécurité et de défense Bima ma Madame madame ma ci Ousmane Sonko Maneko, chef suprême des armées té loolu moy président de la république do yàq sen fête marche bi ngeen di le 3 avril nga xamni day saboter fête gi

y a des chancelleries yo xamni photo marsi lañu la ci seeni réseaux sociaux pour wax né ah lii kat moom xëy mu Sénégal nangam nangam pour yak rek puisque du ñepp du ñepp ñoo bëgg Sénégal nek ci jamm d'ailleurs dem tay ci suba rek ma ngi wax ak ben professeur chercheur bo xamni ku xarañ la ci walu terrorisme muna ne ma dafa am benn burkinabé bu ko woo ne ko ñun daal leen rek ñu intéressé Sénégal wala Côte d'Ivoire puisque bu bu ñaar ñooñu bu ci benn tàkkee rek sunu affaire baax ndax ci sous-région bi day matale surtout Sénégal nag mu ne ko Sénégal moom bu tàkkee moom sunu affaire day daal di donc na ngeen bàyyi xel ci ne am na ñoo une internationale du terrorisme ou du désordre les deux. Il y a le terrorisme djihadiste euh, islamiste radical, c'est un fait. Mais il y a des terroristes pires que cela qui veulent créer le chaos et le désordre, pensent-ils, pour pouvoir s'emparer des richesses du Sénégal. Et, ça, nous ne le laisserons pas faire. Que ce soit très clair. Que ce soit très clair. Amoul les Citoyen, Amoul euh, France Dégage, Amoul Kenen. Sénégal, Ken Doukotal. Je l'ai dit à Macky Sall, je lui ai dit, moi je m'en vais, mais il faut que la sécurité du pays, qui nous préoccupe tous les deux, soit garantie. Que ce soit garanti C'est ça. C'est tout. Hein. Donc, j'aime la paix, stabilité, sécurité, pour que ceux qui ont des activités légitimes puissent les faire. loolu la imam bi xutba loolu la ñëpp war a répété ba mu wër àddina bi wërëngal këpp voilà